waaw deuxième tour bi nag moom xoyantaan bu Gambie xam nga ko roi des arènes bu Gambie. maa xam xoyantaan bu son papa la chaque combat maa ngi foofu ci moom. bii bëre Baye Mandione ñu koy laaj weey fan la la fekk. maa ngi foofu boobu kay ma génne la photo yëpp maa ngi foofu. Baye Mandione ne woon naa ko booy ñëw coupe ongle nga waroon indi sëri ci rek. ku ne ko jox daa daw rek Baye Mandione daa daw rek. ah daw kay mënul am ci réew bi fi toll ndax làmb ji indiwaat dañ ko Sénégal. bu taxawee maa tax mu taxaw Sénégal dama wool Jamaïcain léegi nga laaj ko. waaw hmm. ah, parce que dañ ko xeexoon ci diggante xoyantaan double Tyson ma ne ko bàyyil combat danaa la jox xoyantaan euh, fii Sénégal boo ko loolu jarul ma lay hmm. ah. taxaw loolu. Ah, waxtaan ak ménagère xoyantaan gam waxtaan ak jëmee kee ñu déggoo mu boole leen ñoom waxtaan. bëgg na bëre fii ma wax ko taxaw jéemal taxawal combat bi. Hmm. waxtaan ak jamaïcain waxtaan ak ménagère am boole ñu waxtaan ba jubóo na ci def na ci def na ci xaalis de. fan def na ci xaalis. jamaïcain moomu. ah jamaïcain rek. soo ko combat boobu de. maa abal xaalis de. waaw baax na moo tax ma ne la keroog maa ngi yaa maa ngi gis sama waa ji nga koy sànni xeer. naan ko ministre bi da leen a ko jox leen xaw ma lan ñaata xaalis. waaw comme fekk yàq sama der solool. c'est ça mais combat bu neex ak noonu nag. waaw combat bu neex la vraiment ñu koy ñaanal moom it xale la boo xamante ni macha allah dama koy sànni xeer mais jamaïcain xale la bu am jom xale la bu am gëm-gëm su waxee macha allah nga xam ni kii am na fu mu teg bëtam euh, li ma jaaxal mooy combat boobu xoyantaan dafa mel ni Gambie la mën a toj mais Sénégal gii mënu fee toj de. Sénégal la di. wala xamuleen loolu. moom nee nañ Gambien la xoyantaan doomu Gambie la moom sax loolu la. sama dëkk sama dëkk Ndofane la gëm mu ngi ci gannaawam kañ moor la dëkk. waaw ñëpp wax nañ kañ moor la dëkk mais moom Gàmbi lay représenté. non déggu wax ji xam nga tey nit ki mën a dem di euh, def dem dëkk jàmbur di fa def dàngam ba dem ba siiw foofu mais Saalum gépp ñëpp xam xoyantaan parce que foofu foofu la njëkk a bëree que ne mu dem Gàmbi. Hmm. bu pare buy préparé combat da ngeen foog ne Gàmbi la koy préparé. fii la koy ah, kon xam nga loolu nag bu na mbëri Sénégal bu ñu jàpp ne moom Gambien la rek fa lay Gambie lay préparé combat hmm. fii lay préparer combat am. moom Baye dina yomb. ah xam nga ne Baye Mandione Faye dafa yooyu. parce que dañ koy daggloo weeyam te gisuñu. weey dagg wee Baye Mandione est-ce que caméra yi taxaw nii dañu taxaw carrément yi jël weeyam yi duñ ko du taxaw day def nii rek wàcce waat doo ko gis mukk. da dem ba Gàmbi ragal. war jëm jëmay kee mun na la mun na la daa ragal. jëmay kee kay du la wax loolu jëmay kee. copain la copain la parce que da koy may da koy waayam la euh. waaw moo tax. mais jamaykee xam na ne combat bi yàqewu ci xoyantaan ci bàyyi ma ñun la yàqoo moo nangul bëri parce que xam nañ xam na ne bu bëree dee daanu moom rek rek ñi ko indi woon sax xam nañ loolu waaw mooy rek ci biir enceinte bi mais xam nañ ne bu bu bëree moom mu daanu mais Sénégal nag réewu teraanga la ki amul ki ki ki juddoo Gambie wala ku nekk Gambie ak ku ñëw Sénégal ñoom ñaar ñëpp ay doomu réewu Sénégal lañ combat bi bu ñëwee arène national est-ce que xoyantaan mi ñu xam ñëwee naa taxaw samp ak. Baye Mandione bi moom moo koy feesal boog. yéen da moom xoyantaan. non ko nangu. gëmoo li tax mooy indi ko fii xam na ko fii dakaar fii lim fi yor ci supporter at Saloum Gueye kenn xamul nu mu toll. kooku yéen da ngeen a foog ne moom Gambien la quoi déedéet buy bëre Gambie bis yu nekk mooy jóge foofu fii Sénégal dem hmm. bu ne mooy fii Sénégal di dem Gambie di pour mu pour mu bëre ji kon euh, Sénégal la de. ah na la jamaïcain jox ci ko journée yooyu nga bëri ci.